mbokk je jërë ngeen ci ànd bi ngeen ak programme mu Prestige TV lëkkaloo ci prestigethies.com ñuy rafetlu seen kóolute ci seen télévision régionale Prestige fidèle à sa tradition di béy am solo Layitel teel eh, iba xibaar ngir askan bi. te nag su ngeen ma gisee ma am arrière plan mu nekk garoucheur routière bu Touba ngeen xam ne nag dañoo ñëw la jëm nag ci wàllub dem bi dikk bi ndax eh, mu ngi dox ci magalub Touba. ñetti fan rek des ñu amal magalupa xam ne dañ ko jagleel cheikhul di magal yonu géej gi ba tax na nag suñ fi duggee dinañ sëkk waxtaan ak kilifa yi nekk ndax petak la jëm ci mesure barrière la jëm ci masque ak gel hydroalcoolique ak sàmmonteeg distanciation yi ñu ngi koy jëfe fii wala déet waaye nag dinañ joyanti wala addu rek jëmale ci seen jafe-jafe yi bu wala magal bu jot dañ koy faral di am la jëm nag ci wàllub dem big bi waaye it dinañ leen laajte aussi ndax la jëm ci wàllub yokku paas te ñeneen chauffeur yi di ko def njax ñoom bàyyi nañ ci xel wala deet mbokk yi loolu moo nekk prétexte reportage bi ñu fas yéene amal fii ah, ci gare routière bu Touba ñu dugg xool ana lan la kilifay yi gisee ni ni mel. voilà mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek euh, sànq bi ñuy ubbi ñu ngi fii ci euh, gare routière bu Touba na waral nag euh, suñu prétexte bi wax naa ko njëlbeen mooy li jëm ci wàllub màggal ñetti fan daal di des ñu amal bés bu am solo boobee. ba tax na nag Prestige TV fidèle à sa tradition ñëw fii ci gare routière bu Thiès ngir xool taxaw seetlu gare routière bu Touba. ngir xool rek amal taxaw seetlu ñi transporteurs yi di doxalee jamono yi. Euh, ñu nekk ak euh, kenn ci ñoom ñu bàyyi ko rek mu présenté wu wax ñu moom moom mooy kan. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mboolem ñuy suivre télé bi ak rajo bi di leen wax ne man maay Alaaji Gaye maay président d'honneur regroupement des chauffeurs bu Touba. waaw Malick bi ci gare bi. Uh-huh. Uh, Alaaji Guèye yow moom uh, suñ la dëkkalee micro rek uh, dina nekk loo xam ne ab wareef la jamono yi nag ñetti fan ñu fas yéene amal magalub Touba dem bi dikk bi jamono yi nan la doxee fii ci gare routière. Hmm. waa dem beeg dikk bi mu ngi dox normal ñu ngi maanaam facilité mesure barrière yi nga xamante ne nii moom la ñu état bi. ndax dafa am norme boo xamante ne nii moom la état bi teg ci képp kuy circuler moo xam ci biir dëkk bi la moo xam ci rawatina ñi nga xam nag dañuy def transport di génn dëkk bi li ñu gën a amal solo mooy raxasu ak laal sel bi ak nettoyer oto bi ba mu mel na mu war a mel ba leen noo xëy loolu ñu ngi ci obligatoirement ñoo ngi ci takk masque yi parce que loolu ñu ñëpp xam nañ ne obligatoire la ci kuy dox ak foo mën a jëm boo génnee sa kër rek loolu même sa biir kër la ci ñoo ngi si maanaam euh, sàmmonte ak loolu ndigal ndax wenn xeer la pour ñu war cee jam ñaari picc ndax loolu day ndigalal président de la république waaye en même temps nag day ndigalul xalif général de mourides da koy def wane exemplaire bi joxe ci ndigal kon ni màggal si doonee wareef noonu nii la takk masque doonee wareef loolu moo tax ñu ngi ci organisation bi nag ci biir garage bi ñoo ngi ci parce que aller ak retour la mais fii ci Touba li gën a am solo mooy retour bi toujours nak difficulté yi ñu am ñi wacc bëgg dugg ci dëkk bi waye pour problème fonctionnement garu jër bi pour interurbain bi ñuy wara joggé fi dem fenen du bari lool loolu yomb rek la ndax du bari lool. waye nak ñu ngi ñaan bép client bo xam da nga wara yékk yëg seen oto yii nga war wacc wacc ak sa wartif sa wartif moy dinañu la jox sel nga laal waye it nga obligé di tak sa masque loolu mom moy obligatoire bi ak fo wacc na nga raxasu bala ngay kété it na nga raxasu do nga yékk kété yi. Euh, mu nekk lu am solo ndax euh, gis nañ ne euh, lii semple na lool pour mu tàkk ko te soo ko takkee day nekk loo xam ne dalay aar ci li jëm sawalu wàllu wér-gu-yaram mm. su nekkee ne sax am na koo xam ne am na jàngoro bi lii dalay aar ngir daal fexe ba nga bañ a am doomu jàngoro jàngoro gi. léegi nag seen chauffeur yi ñuy def navette yeneen yi di jóge Touba di dem Thiès am ñu jóge Dakar ñëw euh, euh, Touba euh, waaye nag dafa am ñoo xam ne it soo leen waxee def leen nii dañuy faral am lañ ca teg ndax seen chauffeur yi duñ leen rendre compte ne am na client yoo xam ne suñ leen waxee ne takk leen seen masque dañuy faral di décliner maanaam di bañ. waaw léeg-léeg ñu am ci problème ndax gare routière bi kenn du ci yéeg oto te takk sa masque obligatoire la oto bi moom bala ngaa yek ci bi da ngay tak sa masque problème biñ ci am moy dañu yéegal seen masque boote bi bi premier de deuxième ñu wàcce seen masque waye nak am nañu luñ koy safara parce que bépp manam euh, euh, tak der fu ñu fanee ne ci sa kanam ne la kii nangu la tak masque bi da nañ ko safara suñu problème kay moy am masque yi dañ parce que wax deug yalla dañ daan am stock masque mais magal gi taxna li ci ëpp joxe nañ ko te nak ñun suñu organisation commencé gul carrément parce que après magal nak ci la suñu organisation di gëna am solo waaw waye ma ngi ma ngi delo ci al xelu murit yépp ci ne ni sëriñ bi woté magal gi noonu la waxé ñuy tak masque yi defe naa boobaag léegi ku ñu gis sëriñ bi gis nga mu tak masque murit nak bu ñu wax murit ndigal la tax ñu wax murit kon ñu ngi ñaan ñëpp buñ ci xol li la wala la la buñ ci ragal jangoro ji buñ ci buñ ko ci ñëmé nañ koy dem digëlal sëriñ bi bu sëriñ yo xam ne murit yëpp nañ tak ay saako saako ñun ñëpp dañoo war a takk saako ceeb kon ñun nañ koy def obligatoire maa ndax ndigalal sëriñ bi nañ koy def it nag ndax buur bu ñu waxee buur kat ñëpp danañ ko takk obligatoire waaye nag indee ci obligatoire waaye nag ñun nañ koy defal sunu bopp obligatoire ndax ñun lay aar waaw Euh, takk masque yi nekk lu am solo ndax murit euh, dafa war a jëfee ndigal te ku jógee Dakar wala cees wala yeneen région yi ñëw Touba màggal moo tax nga ñëw kon nag takk masque am na solo lool. Euh, waaye ndax la jëm ci wàllu dem bi dikk bi ndax amu leen ci jafe-jafe jamono yi. waaw dem dikk bi moom waxtu bu ne am na jafe-jafe waaye nag day raw kiliyeetu màggal surtout màggal goo dafa dugg ci contexte bi mu dugg nawet bi ak mbas mi fi ne. tax na yokk na jafe-jafe yi waaye nag ñu ngi ñaan xat-xat looyi kenn ku ne na nga yëgal sa masque singari yi itam lañ leen daan sàmmanteeg ñoom toujours moom lañ dëkkal seen nopp yi nañuy def ndànk tey dimbul leen te parce que circulation loo ci defal nit nit dana la ci defal dara dana la defal lu ëpp loola ñu yaatal xol yi def ndànk waaye it nag ñu bay xel oto yi oto yi la mais jumtukaay la boo xam ne melut melul na war a mel oto yi transport Sénégal melagul ñu ni ñu bëgg mu mel ni kon nañuy def ndànk di bàyyi xel oto yi màggat la ñu yar yoon yu it nawet bi tax na dañuy it noonu kon ñu ngi leen di ñaan ñu sàmmanteeg defar seeni i frein defar seen i acier glace defar seen i lumière tey def ndànk mu nekk lu am solo waaye nag euh, la jëm nag ci wàllu paas xam nga des fois aussi magal su jotee wala gam wala ni ni mel am na ñenn ci chauffeur yoo xam ne nag dañuy faral di yokk page léegi sa gis-gis ak euh, seen chauffeur yi nekk fii ndax euh, loolee ñu ngi koy bàyyi xel wala de waaw xam naa ne dinañu ci bàyyi xel ndax obligatoire bi nga xam moo nekk ci biir gare routière bi biir gare routière bi kenn ñu ngi cay yokk paas waaye nag ñun am nañ problème ah clients yi ñoo na dul far ci bañ a yokk paas yi oto day taxaw chauffeur bi aj otoom fee ne demuma système bi mooy bëgg a yokk paas bi système bi mooy loolu rek mais bu nu client yi doon dimbali waaye loolu dana saafaraw ci nan ci bañ a nangoo ku yokk paas ku mu mën a doon nga wax ne tarif normal bi lañ ñuy yabe ñuy ñëpp la si leen ci tarif normal bi lañ leen di yabe kon ala kulli haal dinañ leen yóbbu par force mais problème day am ci màggal parce que client yi dañuy féete benn woor oto yi dañuy yoroo fi dem Dakar wala ñu yoroo fi dem Kaolack wala ñu yoroo fi dem Ndar bu ñu demee yëpp koku bu la nee du ma yokk paas gisit ku mën yat wu ko tiim parce que ñaari gasoil ngay yeb ci ben allée mo ngay lak ci ben allée da ngay tal sa oto yow dem jël ki ay andi len bu ma nga tajit ke sali ke da ngay ñew fi Touba yeb yobbu way bo demé da ngay wacc ak yidd kon transport magal dañ ci wara waxtanat organiser ko ñun ñu am jàmm ñun ñam jam jàmm parce que mourid bu jëm Touba fi doon ni boko non 20000 bu nekk ci posa mu fay la waaye nak ñun ñoo wara set seet suñu diggante ak yalla suñu digënté ki woté magal gi té am ño xam dañuy jëgé fi wat fu kenn xamut di yékk avion yi wàcc di yëg ci yi wàcc ngir ñëw joxe ci farata jooju nga xam te moom la borom borom bis bi gal ci bis bi wa kon bu ma sañoon it nag ñun ñëpp ñu tënku fofu wa mu nekk lu am solo way nak euh, ci sa njëlbeenu wax euh, amna lo xamné ragal nga ko lool moy après magal xam nga déjà ñëw bi yéen a ngi cerner lépp ba dal fexé ngeen ba ku nekk dal dina samonté ak la jëm ci walu tak masque légui après magal nak modès après magal. Euh, nga am loo xam ragal nga ko ci euh, ca doxalin ngir nit ñi respecté ni ni mel ana lan lay doon waaw li may ragal mooy tastel màggal gare routière bi du mën a supporter transport bi organisation bi nag ci biir gare routière bi la ne mais dafa am ñu bare bare bare ñoo xam ci mbedd mi la ñuy taxaw di yëpp di doxale na leen neex ñeer na mën a organisation bi ci biir garage moom kenn du ko xët waaye nag biti gare routière bi mooy suñu problème ndax dañ naan sa wër si rek sa wër si organisation bi nak li nga li nga tiim nga mën organiser mais li ci sa gannaaw moom wax dëgg yàlla mënatoo ko organiser suñ problème dal moy lool atay yeb ki mbedd mi di def ay dóoxi doonu di yok pass bi di yóbbu reel bagage ci jambour yi tayit nak mënu amunu ci safara parce que mënuñu ñu leena tayeb ki mbedd mi ndax période magal mom gardu cër bi danaka du fonctionner waaw euh, jërëjëf euh, kontaan nañu lool waaye su nekkee ne nag am nga message bi ngay euh, jooyal ci ñi xam ne ñoo fas yéene magal si ñetti fan rek moo ci des te fas yéene jël oto bi ana ban message ngay jooyal jëmale ci ñoom. waaw mooy mesures barrières yi nga xam moom la état bi wax ne mooy saafara si ñu fexe ba di ko jëfe li sëriñ bi wax ñu bàyyi ci sunu xel nañ fexe ba mel ni jullit ab jullit day fexe ba du lor kenn mais kenn du ko lor loolu mooy sama message waaw. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf it maa ngi leen di gërëm baax a baax ndax bu ñëpp meloon ni leen mën naa message yi ñuy lancé ñu ko dégg. ñëpp danañu ko dégg par la que manam transport chauffeur ci rek dañ ko momu chauffeur si dañ ko bokk population yi lolu mo tax di ci waxtaan di li nga xamanteni moy ay lënt lënt yu nekk ci biir ñu diko waxtane parce que amna ci lo xam ci ñun ñi la waaye amna ci lo xam nag ci client yi la ci suñuy waxtaan nak dañu déggo ba kenn ko ne mëna safara sa boss bopp jërëjëf yalla nañ ko magal ay déwéni déwéni deen te fever bi fi nekk di mbas mi yàlla na and ak poussière magal gi dem genn réew mi yëpp waxuma Sénégal na genn réew yi yépp ci barke bis bi bis na lu ne yàlla na ko suñu borom boole jërëjëf. voilà mbokk yi lii nag la ñu sekkoon waxtaan ak euh, ñi xam ne ñoo yor li jëm ci wàllub euh, transport bi euh, fii ci gare routière bu Touba nekk fii ci héliport bu Touba mu nekk nag ay tontu yoo xam ne nag daal nañ ko indi ci laaj yi ñu samp ñoom nag la jëm nag ci wàllub ñaax clients yi ñu respecté lépp loo xam ne rek chauffeur yi wax na leen ko ñoom nag ñu ngi ñaan clients yi ñu respecté ni ni mel. loolu nag mooy warugalu chauffeur loolu it mooy warugalu responsable envoyés spéciaux à Touba Malick Lay Diouf Marème Ly Mamadou Ndione Lamine Dieng Modou Kaaf et Fallou Mbeng mbokk yi jëf ba beneen yoon